ci lu toll ci juróom-ñetti fukk ak ñetti voix la ñii di waa assemblée nationale dàqee projet bi nga xam ne njiitu réew mi yónnee woon na ko donte sax kii di ministre de la justice garde sceaux Ousmane Diagne indi na ci ay leeral yu bëri ñi ko bëggoon a jàllale lu toll ci juróom-ñetti fukki vote la ñu am ngir supprimer bànqaas yi di haut conseil des collectivités territoriales ak conseil économique social et environnemental waaye nag dàq boobee warul bett kenn ndax nag. commission des lois sax wane woon nañ ko ca njëlbeen ginnaaw bi ñu daqee principe yi ak li ko lal laata sax ñuy dem ci commission des lois ñii di waa majorité parlementaire di benn Bokk Yaakaar ak ay ñoñam wane woon nañ ne seen mëbët mooy def lu ñu mën ngir baare projet bi nga xam ne nguur gi moom moo ko lamb ginnaaw loolu yëpp li jaaxal ñëpp mooy li tax njiitu réew mi jaarale ko ci assemblée nationale wala moom ci boppam dafa xepp ñii di waa benn Bokk Yaakaar ndax dafa jàppoon ne mënuñu capoteloo projet bile waaye majorité parlementaire bu Benno Bokk Yaakaar wone nañ seen bopp ba sax ñu yokk ci teg ci table bi lii di motion de censure ngir démission gouvernement bu Ousmane Sonko loolee nag su amee ginnaaw juróomi weer nguur dana doon victoire bu am dayoo ci ñii di waa Benno Bokk Yaakaar waaye nag ñuy xarandi ci président de la République moom itam mu tontu ci jëf yooyee su moytuwul sax ci dissolution assemblée nationale lay tàmbalee ginnaaw le 12 septembre bi ñu dëgmal organisation législative yi nag moom moo nar a doon jeexital ya ba tax na xëccoo bi mooy doon ana kan moo nar a contrôler majorité parlementaire bi xeex bi nag fa lay tàmbalee diggante pouvoir exécutif ak législatif mu nar a doon xeex bu metti boo xam ne nar nañ ko dundu filek mois de décembre 2024